kérok ba serigne abdoulaat mbàkke dafay communiqué diglé né dé leen julli di wor di nat azaka ba ko serigne abdoulaye fall ndar déggé da yoni serigne moodu aminta né ko dama laajal ma ndigal serigne abdoulaat budé ñun bay fall ci lañ bokku ñu jëfe ko kérok ba serigne moodu aminta fall démé serigne abdoulaat da ko né serigne touba ragalul won cheikh ibra ba diko may lu mënu lool nak mu mayon cheikh ibra ñima mag dik bayiko fi man abdoulaat duma ko dind mukk wax ji bay dam fall mu serigne moodu aminta moñu ko netali jaarama cheikh ibrahima fall